jege lool Ousmane Sonko la tey nag projet ki nga xamante ni mooy Ousmane ah, Oudmane Diagne Oudmane Diagne xam ngeen ko bu baax a baax a baax te mu jiite mafia kàcci kàcci euh, ñu téewoon ko tey ñi ngi ki nga xamante ni mooy Diagne solution Diagne solution ñu ngi lay nuyu bu baax. sunu Buzz TV mhm. sunu ñu bëggoon a xam affaire Ousmane Diagne bi nan nan la demee tey ñu bëggoon nga leeral ñu ko. waaw effectivement affaire Ousmane Diagne bi eh, ñun ñëpp bi ñu xëyee ay euh, huit heures fa la fekk. Mhm. léegi nag euh, bi ñu toogee ba ay euh, seize heures. Mhm. ci la wax ne def nañ ko. Sunubuzz TV. xam ne loolu diplomatie mu ne fànn ñu ko teg seen bët. di yoral ay juróom-benn jabar ak ñii di wax ay trent jabar. nga yor leen te mujjul fenn. ñu gis ñoo xam ne ne député bu nekk en section jàpp ko ci faux billet. mu yor des milliards dina wëy yàqu naa mujjul fenn ñu gis koo xam ne ne post na wala wax na ñu dul waxu dara ñu téye la ci kaso bi muy ko ay ñoom Cheikh Omar Diagne ak Outoumane boobu mm. réew mi li ñuy wax mooy képp ku nekk xam nga ne instant bi yaa ngi Mm-hmm. man bañ naa ko ne sax jaañ solution ñemeetuma jënd lañset si buntu bu ci boutique bi mm-hmm. ñemeetuma jënd lañset ñemeetuma jënd puso mm-hmm. parce que damay bañ sax ñu jo eh, nga jënd lañset ñu jàppale terroriste maanaam dëkk bi moom mel ne ku bokkul ci nguur te da nga nekk ci opposition surtout nga féetoo Ousmane Sonko mooy sa bakkan ci xotti gerte parce que noo def euh, loo def rek mun leen jël si projet bi kañ nga jàpp lan lan jàpp ni war nañ koo defaat bi comme li ñu wax rek dañu ne rek euh, comme doon nañ ko mandat dépôt ñun li ñuy wax rek dañuy déglu. Mhm. peut-être euh, xam naa ni semaine prochaine dinañ dinañ euh, dinañ wax kañ la ñuy defaat bi mais instant bi daal moom ñun comme li ñu wax li ñu jàpp mooy instant bi mhm. le kii mu traité vendredi ak samedi bi nga xam ne vendredi bi Ahmed. tamit mhm. mooy beneen deuxième plan d' action bi. Mhm. troisième plan d' bi mooy place de l' indépendance fa la dem te fa la ñuy def seen marche. Mhm, ah loolu rafet na kon joxal rendez vous rek ba ki incha allah euh, dinañ amaat beneen appel incha allah bi sa programme wuñ ko. d' accord. ba d' accord d' accord d' accord merci beaucoup leen euh, ñi seetaan ñëpp ak ñi nga xam ne ñu ngi. Euh, nekk ci seen chaîne bi di leen remercier di leen baaloo xam naa nag ñu ngi leen jox ay rendez-vous yoo xam ne ni incha allah dinañ ñëw ci plateau bi. direct waxtaan ak sénégalais waxtaan ak waa diaspora loolu moom incha allah c'est promis monsieur Diop. incha allah jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf. jërëjëf jërëjëf jërëjëf monsieur Diop. Mm-hmm.